xam ni moom moo uh, li nga xam ni moom nga soxla lépp ba tax na nag yaayam ko takkine comme ni mu koy defee saa su ne uh, mu mel ni complicité rek uh, bu rëy moom mooy daw ci seen diggante ñoom ñaar c'est normal ndax yaakaar naa ni diggante yaay ak doom ku ne xam na ni loolu rek moom moo ci war a mën a am waaye mère Ndiolé itam li ñuy wax dàq ginaar waxaale sa soxla moom loolu lay def saa su ne da koy takkine waaye nag li ne ci xolam itam lay daal di génnee ndax bu sañoon sawru daal di fas soxna bu yàgg yàgg ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni bu ndaw jëlaat na viwam normal euh, ndax nag lim bëgg jamono ji mooy jaayu daal di am nag euh, jëkkër ba tax na nag euh, bëgg mooy génn kër gi nekk si jàmm ba na lépp loo xam ne yaakaar na ni bu ko defee dina mën a attirer góor ñi mu ngi koy def waaye nag gis nañu itam muy takki ne ki nga xam ni moo di njaago ndax njaago da koo xamal ni am na copain waaye nag nanguwu ko cee leeral benn yoon ñu jàll ci sawru moom nag lim bëgg mooy dellusi ci réew mi daal di investir ci réew mi Euh, liggéeyee waaye nag yaayam mi ngi koy xamal réalité yi nga xam ni moom moo am fii ci Sénégal rawatina nag boo buggee amal sa entreprise ndax papier yi nga xam ni moom nga war a jën euh, jafe na trop pour nga euh, jot si duñu la ko yombalal benn yoon waaye loolu découragé wul sawru benn yoon ndax moom rek jël na ndogal que ni li muy sonn bitim réew mu daal di koy sonn ci réewam moom moo ko gën tax yi itam puisque dafa décidé daal di takk soxna took jege ko gérer famille wam moom moo ko gënal bu baax baax waaye gis nañu ni yaayam ci mbirum takk bi ci la gën a saw war ndax dès que mu wax waxu njaago rek da koo gën a encouragé ñu jàll ci tonton Makou moom nag muy continuer rek di harceler ki nga xam ni moo di euh, njaago ndax jamono ji bëggatul sax njaago génn euh, kër gi te njaago dafa war a dem euh, école gis nañu ne njaago moom dafa rek daal di rester calme xam na ni tonton Makou am na fu muy àgg ak moom rek mën na ko regretter ba tax na nag dafa rester calme rek daal di toog ba nga xam ni war naa mën a génn mu daal di génn ñu jàll ci moom tonton ba tey moom nag dafa ñëw di fuyete néegu njaago waaye bu ndaw xamal na ko bu baax a baax rek lim fay def loolu nag merloo ko bam futtu ba tax nag mu daal di wax lu nekk waaye nag gën naa mer bi ko bu ndaw xamalee que ni njaago dafa am rendez-vous ak góor mu mel ni kon moom tonton Maku day fiire njaago te bu sañoon nag ñu daal di ko koy uh, may ci ni mu gën a gaawee ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni njaago moom it uh, lim bëgg mooy génn kër gi rek ba daal di am jëkkër daal di sëyi uh, jàpp na ni rek tonton bu nekkee ak moom ci kër gi ak ni muy doxalee ak moom mun na koo violer loolu nag famille bi mu mel ni kon moom njaago bëggul benn problème ba tax na nag moom it lenn rek la bëgg te mooy sëy génn euh, kër gi ñu jàll ci Cheikh di papaay wu njaago moom nag moom dafa bëgg a honorer engagement wam ndax bi muy bi njaago nekkee xale la ko daal di may euh, bàjjen te nag kenn du maye bopp rocc làmmeñ loolu nag tax na tey bi njaago demee ba toll ci sëy mu bëgg daal di jël lépp rek dal di koy bàyyee ki nga xam ni moo di euh, bàjjen lool nag yaakaar naa mooy li war ndax nit boo ko mayee nit mu yor ko ba muy xale ba mu lépp loo xam ni itam war ma caa xew yaakaar naa ni rek danga war a euh, ndax moom moo ko yeeyoo ñu jàll ci euh, sawru moom nag ñëwoon na waxtaan ak njaago ci fulla ak euh, fayda daal di koy demandé en mariage mu mel ni njaago itam nangu na ko waaye na comme dafa am kilifa bëgg na ci waxtaan ak papam ba pare muy lu normal ndax yaakaar naa ni nit donte sëy sa vie privée la waaye war nga cee mën a waxtaan ak say kilifa ba ñu daal di ci d'accord ndax yaakaar naa ni rek jigéen li ñuy wax rek moo la war a mën a maye. ñu jàll ci tonton Macou moom nag gis nañu ni kontaanul ci position bi nga xam ni noonu la papa yu njaago taxawee ndax moom li mu bëggoon mooy ñu forcé njaago ndax xam na ni buñ bàyyee njaago ak ci gëlu guyam rek du mas a ak moom xam na ni njaago bëggu ko waaye nag yaakaar naa ni loolu du yomb ndax bàjjen ko nangu te nag njaago du ko nangu mu mel ni kon moom tonton Macou intérêt rek lay xool te it nag moom la jël daal di koy teg ci kaw wul lu neex ak kenn ba tax na nag muy day génn kër gi ndax kër gi kenn bëggu ko ci waaye bàjjen wan na ko carrément que ni euh, loolu yëngalu leen yaakaar naa ni tonton Mako mu nekk ci kër ak mu ñàkk cee nekk yëpp a yam wala sax mu ñàkk faa nekk moom moo gën ndax mag boo xam ne day jaxase ak di créer problème ci kër yaakaar naa ni kenn soxlawu ko ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni sawru moom nag dafa yàkkamti trop daal di lépp ba tax na mu daal di yóbbu premier cadeau ni euh, moo di euh, bàjjen jox ko ko waaye bàjjen dafa daal di jaxase lépp ndax jàpp na ni ki nga xam ni moo di sawru bu ndaw la indil premier cadeau ndaw yaakaar naa loolu nag dina indi problème ndax ki nga xam ni moo di sawru njaago moo ko taxoon a jóg waaye ku ne xam na ni njaago ak euh, ki nga xam ni moo di ndaw ñoom ñaar ñëpp bàjjan la leen tuddee ñoom ñaar ñëpp kinne la ñu tudd ba tax na ki nga xam ni moo di bàjjan jàpp ne rek moom sawru bu ndaw lay waxal mu daal di jaxase lépp kon mu mel ni loolu nar naa indi problème ñu jeexal ak njaago moom nag dafa tiit am njàqare bu baax a baax ndax ku ne xam na ni papam dafa feebar loolu nag tax mu tiit ndax da koo war a seeti di ko woo rek te mënu koo jot loolu nag muy normal ndax yaakaar naa ni nit bu dëkkee moom kese euh, bu nekkee ci yenn état yi nga koy woo jotoo ko di nga tiit ba tax na yaakaar naa mag kenn waru koo bàyyi ci kër euh, moom dong ak nu mu mënti demee rek war nañu ko war a mun a utal koo xam ne moom moo koy wéttali euh, ndax ku ne xam na ni mag dooleem bariwul te am na yoo xam ni da koy soxla kon bàyyi mag rek nekkut loo xam ni lu wóor la rawatina nag koo xam ni dafa bar kon mbokk internet yi fii la ñuy yem épisode 7 bu série contre polygamie jox leen dig daje si beneen épisode waaye laataa boobu te bu leen fàttee ba si cloche notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel la jërë ngeen jë